تقطع عليك صلاة الله ثم سلام فإن فؤادي عندك الدار أجمع عليك صلاة الله ثم سلام أكبر من كل تكبير وهو حكيم قدير أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أنه رب السماوات والأرض ورب العالمين وله كريع في السماوات والأرض وهو عزيز حكيم رافع درجات ذو العرش وإن من شيء إلا يسبه بحمدي وما يعقلها إلا العالمون وفوق كل ذي علم عليم والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ملء ما علم وعدد ما علم وزينة ما علم أشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له ولا صبيها ولا مماثلا ولا معاندا شهادة تكسب لقائلها أعلى المراتب الإيمان وتنجيه من أغوال النيران وتسكنوا على الفرادس الجنان والصلاة والسلام على مجمع شأنه وسر حكمته ونور قلقه وعين عينه التالي عصب مسان بصفات حقية والخلقية سيد كونه إنسه وجنه أين رحمة رباني البشير نظير قادم الحضرة القدسية الموحد له بمطلقة تقدير سيدنا محمد فاتي القاتم نبوة وولاية المتجلي في الغيب المدبر العالم ورضوان من الله عزيز الغفار الناصر بالحق في عالم الغيب والشهادة صديقه عالم بشريعته وتكاليفه المجاهد وشهادة أحسن مجاهد الله أكبر سبحان الله والحمد لله بكرة واصيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر أما بعد فيا عباد الله من ينجام يالله فاسمو دغلو لين وان وانسوتو تنين خيرولو ني خيرولو موي ne cell déglu raakumullah yàlla sàmm سامولين wa mo ngeen xam ne ana xaalaqakum naka aji bindi seen ma xaalaqakum abathan ñu ci si bindu ñu ci fo alquran wax na ko ne do ma adama yi ma leen si fo si dëgg moo ma bindi leen afa wa ma khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turjaun si ñun ngeen joge te si ñun ngeen di delu mom kan mom yalla inna qalaqal jinn wa ins yàlla bind jinne yi ak doomi adama yi li ibadati ngir ñu jaamu ko kon yàlla dafa bind nit ñi ak jinne yi ngir ñu jaamu ko wa maa xalaqtu wa ins ila li yaabudoon yàlla neena binduma nit ak jinne lu ne ñu jaamuma watu jaddidul iman ñun ñep nañ yeesa suñ ngam yàlla ñun ñep nañ wax la ilaha illallah muhammad rasulullah wat nañu sak Saku ziyadatan ziyaadatan dole kul bi isani si rafetal nañu rafetal si mbollem luñu wara rafetal rek rafet ngir jëm yalla ji warna si fi kulli makan wa zaman bërëb bu nek ak jamono ju nek rek lepp luñu def nañu rafetal bokku na si wa inna min dihi, bokku na si feddali moy top sunna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam si wax ak si ndax moom muhammad huwa aynu taqwa mooy jëm ragal yàlla sayyiduna muhammad mooy jëm ji nga xamante ni si moom la ñu amee ragal yàlla allazi yanaalu taqwa si moom la ñu amee ragal yàlla yàlla sax wax na tey ne bés bi lan yanala lan yanaala allaahu lahumaha wala dimawuha walakin yanaalu at taqwa minkum mu ne deret bi ñuy tuur tey yàpp bi lu muy bëri bëri xar yi lu muy bari bëri yëpp mu ne ragal yàlla rek moom borom bi moom la ci sàkku kon mu ne kon zalika istinaanu bi sunnati mooy ñu sunna woo tey sunna si junaa ma sallallahu alayhi wa sallam fiyaane di udhiya si bésu tabaski bi mooy bés bi nga xamante ne wal arzamu ay moo gën a màgg si ñaari feet yi ni korité ak tabaski bii moo gën a màgg mu ne mashroon lu ñu yoonal la fi zamanina abina ibrahim ñoo ko si suñu maam ibrahim ba ko yàlla ne reel sa doom bi ismaila amna téré yu def ni ishaq la cheikh ibrahim mu bañu werante mu andi ñaari ne ishaq aw ismaila kon li gëna fess dal li gëna wóor ismaila lañ warona jotu ni bésu tay bi yàlla waccé li nga xamante ne mooy li ñu rey muy xar ngir ñu jotoko maamu muhammad sallallahu alayhi wasallam di ismaila mu nekkoon jotee nañ ko si xar jibril wàccee ko loolu tey moo des fa saara sunnatul baqir ila yomina mu def nekk sunna ba suñ jon yàlla tee jii mu ne bésu tey bi afdalu min sadaqati wal itq bésu tey bi moo gën saraxe nga amoon jaam nga goreel ko bésu tey bi moo ko gën a màgg am na ñu wax ne sax lu war la de yàlla may na la amam loo mën a jëndee xar loo mën a jëndee yëre jëndal mu ne su fekkee ne danga nga koo bàyyi nag te mën ko bàkkaar la fa man taraka xaadiran asima kon bu la ko yàlla mayee def ko wa tajibu bi nadri nga demoon si dareel bi ne dinaa jënd ñaari xar mbala dinaa jënd nangami xar bàyyi ko ngir tabaski mu ne bu ñëwee na nga ràññilu bu baax ndax da nga ko nadaroon te boo nadaree boo deful bàkkaar la si di topp kon mu ne na nga ràññeeku ndax tudd nga ko si sa làmmiñ iza iltamazaha iltazamaha bi lisaani waxoon nga ko ci sa làmmiñ tudd ko ni lii kat pour tabaski la bés ba bu jotee bu ko jaay jël ko nga def ko li nga xamante ne mooy sunna bésu tey bi wa niyatu inda shara'iha alal maarufi mu ne kon li ñu digale tey si bés bi at ci war ci moom mooy gor gor boo xamante ne attan na ko mën na ko koo xamante ne taxawul tey ci mina ni aj xayru xaajin bi nan wal من لا يحتاج لزمنها li zamaniha لب لو tamit سي مالك بو ني si بي لي سي ديس bi li si des moo dootul fanweeru fan ñaar fukki fan at bi da ngay génn ci atu julit ñi mom lañu ñu tam xarit bu fekké ne xaalis bi nga yore fi ak ñaar fukki fan doo ko soxla tabaski warnal ñu bàyyi ci xel ci xar yi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jàngale nako ñuy ray xar yu bari ci kër yi mu ne nañu am yermande buñu tak xar yu bari rek di di teur di teur di teur yenn xar yi di gis mu ne loolu bàkkaar la yermande fi yalla nekul fofu mu ne li gën moy bepp xar buñu ray benen bi buñ ko tegg beut mo ngi melni ni ku dugg sa kër rek di boom say doom nga di tegg beut neexul ci xol mu kon su boba li sayyiduna Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam jangale mo yermande buñu ray ñaar ba ñett ci kër yi mu nañu ray benn làq yi nga xamante ne moom moo des ba bee dee ñu xëcc sànni te fële jëlaat beneen bi door a rey ngir ñu bañ koo gisante ngir tamit kàmb yi bu mu nekk benn ngir lan mu ne ñoom deret bi day xeeñ seen biir lépp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ko jàngale ngir mu nekk aw yërmande mu ne bésu bii sax bu amul ñaari yére jëlal benn bi nga jaay ko boo ko jaayee ngir su fekkee ne mat naa jënd xar nga jëndee ko xar kon bés bi kon bés bu bu màgg la mu ne nag li gën si bés bi mooy xar topp béy boo amul béy nag ba gëlëm mais lii lu jara settantal la ndax béy moo gën a yomb xar xar moo gën a yomb nag nag boo gën a yomb gëlëm ngir aksi bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci màkkatal mukarram yàlla bëgg leen terale bi su tey bii mu nekk ayet moo tax ñu jël gëlëm foofu noonu moom njëkk ñun fii xar mu njëkk xar wax nañ ne mooy bu am juróom benn weer bu am juróom ñetti weer bu amaat boobu mooy sëniyu mais kuy lay kuy lay nekk wa aqaranu mu ne tamit day nekk bu am béjjën mu ne afdalu moo gën mu si yii nii mooñu tuddu tudd nga mu ne wante bu njëkk bi moom moo gën si luñ tuddu wa sëniyu minal marzi si béy mooy bu am ñaari bay dugg si ñetteel ba bu fekkee li nga xamante ne moom mooy nag mooy bu am ñaaraat at bay dugg sa ñetteel ba bu fekkee gëlëm mooy boo xamante ne am na juróom-benn tere nañ si bésu tey bi ñu xar buy lagg bu làgg mbala buy soox mbala bu feebar mbala bu fiiw mbala boo xamante ne béjjén bi dafa damm bu fekkee day nàcc mu ne boobu du baax ida kaana yut mi wal bashima mooy bu fër wal maqtuatul uzni at boo xamante ne nopp bi dañ koo dagg foofu nag am na leeral mu ne nopp bi dañu tuddee arqa wa bii dañ koy dagg ci kanam bii dañ koy dagg ci gannaaw ni ki bakkan bi ñu dagg ko dagg bi ëpp ah mu ne buñ ko daggee su boobaa mënul bu fekkee ci gannaaw lañ ko dagg ci nopp bi mu ne boobu tamit mënul kon yëpp charia da ko dàq mu ne bésu tey bii tàmbaleeb loj mbalara yi moo ngi tàmbalee si jant tey bii bi mu fenqee ba ñetteelu fan ga ba jant ba di so kon ñu gis ne kon tabaski ñett fan la du benn fan boo ko amul tey suba boo ko amul suba gannaaw suba ba jant ba di so fa la tabaski yam mu ne su fekkee ne jigéen la moom rek moom moo ne ci këram mbala amul ku leen rayal mu ne nañ am ku leen wutu moom mu yéene koo ko rey wante benn góor góor bu mu dem si kër di leen rayal ngir ñu ko siy fay mbala ñu am luñ ko si jox charia da koo tere mu ne naka rey nañ am yërmande si paaka yi mu ne na ñaw mu ne nañu rombale paaka bi muuran mujiza nañ ko jékku bu baax boo koy jékku nga teg ko si bollax bi mu ne su boobaa am na lu ñu tuddee xoor bi foofu lañ koy teg nga dawale paaka bi wa yaqtanhul qawmu wat jay ni nga dagg buloox bi ak ñaari sidit yi dégg nga de mu ne su boobaa loolu mooy rey boo xamante ne am na yërmaande mu ne tamit mu si bésu tey bi nga jaay si lu du ne da nga see saraxe bésu bi képp ku ko amul wàcc na la ndax sa yonent bi muy seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa defoon lu ñuy tuddee tabaski rey ñaari gàtt déglul bu baax bi mu ne bismillah booy rey da ngaa bismillah allahu akbar seyduna muhammad bi muy rey dafa ne bismillah allahu akbar haada anni bii man maa moom ak ba xamante ne wa aman lam yu dax min ummati at koo xamante ne yàlla dogal na amul lu mu rey si tabaski Seyduna Muhammad reyal na la kon reyu Seyduna Muhammad moo gën ñu suñu rey kon li si ci boole yépp yooyu noonu bokk si mu ne reyoon na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xar ñaar yi dañoo amul ay bët mais bët yi dañoo ñuul bu ñuy xool bu ñu gooree fi ñu tëddee foofu dafa ñuul bu ñuy dox tànk yi foofu dafa ñuul mu ne lii la Seyduna Muhammad sallallahu alayhi jàngale woon ci loolu muy sunnati yi euh, muy sunna si ñun dinañ bëgg xar bu weex baax na mais buñ mënee am ba am lu mel ni lu Seydina Muhammad gi moom moo gën si ñun mu ne amul bésu tey bii lu dul ne yàlla nee naa na ngeen jënd ay kuy ndax yow yowmal qiyaam seeni seeni bagage yi si koy teg uti àjjana azimu daxayaakum fa innaha mata yaakuma kon ñu am kuy bu suur bu looful baax na lool ci bésu tey bi mu ne amut kenn kuy jublu penku sayyiduna muhammad ma min abdin tawajjaha bi udhiyati ila qiblati ila kaana damuha damwaatuha wa suufiha xasanaati muxdaraati fi misanatihi boo jublee penku jël sa xar allahu akbar rey deret bi lépp lu nekk si karaw ëllëg day ñëw si sa misaanu xasanaat si say jëf yu baax yi kon bésu tey bi bés gën ko tedd jëlee nañ ci xadiisu ibnu baas xadiis bi yëkkati nañ ko mu nekk marfon mu ne amul lu gën tey tuuru deret si bés bi borom bi day feeñ wax malaayka yi ne xool leen sama jaam yi jaam yi bëgg nañ ñi jublu woon fii bi ñuy ñëw ñu jaaree si beneen yoon ngir ñaari malaayka yi seede leen ngir malaaka yi seede leen si ñaari yoon yi ñii ne booy ñëw nga saraxe si yoon bii booy delluwaat nga saraxe si beneen yoon lépp mu nekk yiw mu ñeen mu ne bu ñu demee bu ñu naan ndox nañ or ba ñu mel ni Cheikh Daouda dal di rey gàtt yi ñu lakk bi loolu mooy dog bi nga xamante ne moom lañuy wax si diggante euh, julleekaay bi ba nga yeewoo fajar at bi nga xamante ne moom nga demee sa kër ga doo lekk doo naan dañ ciy def or sallallahu alayhi wa sallam newoon na ne bésu tey bii mooy bés bi nga xamante ne fii fan yi di jeex bu buñ jullee nañuy tudd yàlla allahu akbar allahu akbar allahu akbar ba ñetti fan yi moom di jeex mu ne li si nekk si tiyaaba kenn xamul nu mu toll kooru diggante bi juróom benn fukki junni si ay yiw la nekk tey si heure bii ba ba ñuy rey gàtt yi ba ba ñuy lakk li nga xamante ne mooy li ñu war a lakk si ndawal li mu ne nañu ragal yàlla nañu jokk mbokk yàlla mi nga xamante ne moomu mbokk te moom moo koy sàmm mu ne nañu tudd yàlla lu baax ñun li nekk si ñun day jeex lafa yàlla du jeex kon lépp lu ñuy denc nañ xam ni lu mu yàgg-yàgg di ko def ci soxla boo ko deful ci yoon yàlla mu ne danaaw nañu sàmm waxtu julli yi ci waxtu yi nañuy julli ci laab nañuy julli ci waxtu yi nañuy julli ci mbooloo mbokk yi ñu bokk yàlla yàlla yàlla defal ñu sutura yàlla ñu yàlla defal barke yàlla yàlla baaxal suñu réew ñoo ngi ñaanal Sénégal kilifa diine yi yal na leen fi yàlla bàyyi kilifa aada yi président Diomaye am na yéene ñëpp gis nañ yéene bi mais yal na ko yàlla musal ci seytaane nañ ko ñaanal yàlla ba xelam lépp lu mu signé mu nekk suñu njëriñ sa njiit bu la jiitee signature am boobu noonu buñ ko xeeb ñun ñi ñëpp si lañu dugg kon nañ ñaan yàlla yàlla suturaal na ñaan yàlla yàlla nekk ndimbalam wa ma nasru illa minhu wa huwa naasiru yàlla rek moo yori ndimbal yéen na yàlla dimbalanteeg moom ba fi mu bëgg a yóbbu Sénégal yàlla dimbale ko fa muy yóbbu ko fa yàlla mun na ko sañ na ko yàlla na koy suñu borom def yaa bi ñaan yàlla ñoo ngi jëm si nawet yàlla nañu yàlla may nawetu jàmm yàlla nañu yàlla may ndoxu barke yàlla nañu yàlla may ndoxu tos yàlla yàlla andi ndox bu ànd ak àndut ak benn ngelaw sañ na ko na ko yàlla def yaa rabbi lépp lu ñu jiw yàlla na sax yaa rabbi bu saxee yàlla nañ ko góob buñ ko góobee ñoo ngi ñaan yàlla yàlla nañ ko jëriñoo lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ajib ayaar bi siri zaati wa siri sifaati rabbi ayaar ma fatimi fii la ma qad qassantu an turimu nayla kama ajabtu kulaabin saala fi ma fa xaqiq amala أنت الذي ترزق ما تشاء ومتى تشاء كما تشاء وما شاء وأنت أكرم وأنت أرحم وأنت أجود وأنت أعلم أنت غني قادر المريد ولا يكون غير ما تريد نزل في نسم في كافي أنك حي ودود الكافي تقلب الأعيان في أعيان في أقوام في أزماني خير لي صعبا هدى وخير لي من كل شيء غير وكن لي يا ربي بالهادي والصحب هادي فتك بشيء بكل شيء حادي رب العالمين آت باللمين كل مطاب لكل هين آت عبيدا بيوتا واجلا إبي جاوي واجلا لما تعودت أراني نت كل مطاب وإني فصت ما قط غائبا من ربي بل كل ما أبرز سكرت وبي نعم في الظاهر والباتن أسب الغيب والمواتن زال تكارد وذاك أظهم موهبة وحاب من يكرم لدى حواليا مدينة بلي فتطرد كل الشرور أبدا وسرمدا لدى حواليا مدينة بلي فتطرد كل الشرور أبدا وسرمدا يا رب صل على المختار وآلي وساب أغياري نعم السفى المصطفى ولم أزل الغامة أجب رب عزتي مطلوبنا كما عجبت مطلوبا لولينا لك الشكر لعبادي يا إلهنا أقضي أعمال عبد والمسلمين أديت قدرا بقدر رجاونا قصص لنا بكل وسرورا من مدينة بلي جئتك يا ربنا دخل بنا جنة فردوسا ضر لنا جلب لنا خيراتي بجاز الكرم والمفيدة لين لنا كما لين الحديدا غيرنا وغيرهم يا ربنا لك كنت أمامنا وقلفنا أتمن بينها نورك المبينا ها صاحب الخير وخيرنا لدى السماء بينها والأرضنا روي القدومك يا رب الجليل جلنا بجلك الكسيرا روي القدومك يا رب الجليل جلنا بجلك الكسيرا روي القدومك يا رب الجليل جلنا بجلك الكسيرا اللهم باركنا وبارك كلنا آخرنا وآخر من سبتنا لطيف لطيف إلى جميع حاجاتنا يرحمنا كما رحمت الصغيرات التف يا رب بكل صافر وجلاد وود وعجز لقيت فقرانا وعلمت بكو بكو إلي تطلبقا اللهم صل على لما أغلق والقاتم لما سلاواق ولا دي إلى صراطك المستقيم ولا قدر المقدار عظيم ومصر يا لا سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والقاتل لما سبقنا صراط الأولاد إلى صراطك المستقيم ولا آله قدر المختار العظيم على سيدنا محمد الفاتح لما أولق والقاتم لما ما صراط المستقيم ولا آلي قدر المقدار عظيم والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة الله ثم سلام فإن فؤادي عندك الدار أجمع عليك صلاة الله ثم سلام